waaw maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp kii ñu ngi koy wax Gadd Ndiaye dongob sëñ Gadd Fall Daktor bu maam Saliou Fall borom daaru xëfoor dëkk fii ci kër sëñ Gadd Fall Daktor maanaam bi sëriñ bi wàcc may yeesu ci doomam ñu koy wax seex Moudou Anta Fall. waaw kii mooy peñe bi kii nag yaakaar naa bi sama waajur làqoo ba tey ci laa ko tàmbali bi may dem di màjjal ay trois pan di ko yóbbandoona ba ci yàgg ma xam ne liggéey sëñ Tuubaa nu mu gën a taaroo gën a rafet rek yaakaar naa ne warawuñ ko ak puukare wala ak dara man nu yëg liggéey rek ak yëg-yëgi sëriñ bi rek laay dund moo tax peñe bi daa rafetagut fi mu toll nii dafa des ndax ginaar yi ci war a demaat ak yeneen ak yeneen kii man peñe bi maa ko duppee peñe sëñ Muntaxa Mbàkke moom la ñu toggee kër sëñ Gàddu Faal docteur yenn mooy verre blanc yi ngay gis ñu yenn ko yóbbu ko kër sëñ Tuubaa mooy ndogu yooyu ngay gis trois heures du matin laa yeew jël peñe bi rab ko defar ko ba mu jaar yoon ma décorer ko ba mu nice fi mu ne nii wàccu gu ma desee rafet bu rafetee ba mu àgg ma àgg ba ci kanamu sëriñ bi teg ko ci ay loxoom mu ñaanal ma ma boole ko li addi jaami yàlla yëpp di ma jox mooy wéef yeeg yi ma gars yi dugal dama daal màjjal de waaye léegi damay peese marsa bu ma demee wéef yi ma gars di jox mooy numéro bi dañ may daanaka damay peese barke Cheikh Rafal peñe bi déggu ma de peñe bi fi mu toll nii laa la wax dama ko daal màjjal di ko peñe léegi addi jaam ñi ak addi jaam yi seen addi ji ni dajale daanaka ci laay peñe peñe bi léegi dara jee Cheikh Rafal mooy peñe bii nii ma ma tudde ko sëñ Muntaxa Balla Saburi moom laa tudde bi moom laa ko dippe barke Cheikh Rafal non tarkal la man rafetu ci man rek waaye dafa rafet ci jaamu yàlla yi ndax man gisuma rafetaay bi sëñ Tuubaa rek laa gis ci peñe bi Ahmadou moom laa gis ci peñe bi moo tax mënu maa gis rafetaay peñe bi fu ma romb nag nit ñi dañ may yéem xoolal lii xoolal lii waaye man mënu ma koo gis a ah, xam na sëñ Cheikh Ibra rek ak sëñ Bamba lépp sëñ Tuubaa Cheikh Ibra rek la ay Baay fa lañ tuxunu naa nuñu sàcc ñu liggéey jàmb yàlla la ñu sas sama place nga ca Ndakaaru koor ba koor laay ñëw liggéey Serigne Touba bu weeru koor bi jàlle ma dellu moom la ma adduna xame moom la ma marché xame kii dinaa ci màjjal alal ju bari boole ko ginaar yi teg ko ci loxoy Serigne bi barki Seexul Xadim ba pare yor añub donge yi ci biir kër Serigne bi wallahi esi mu ngoonee ma xaal ndog yi ne ci kanam kiñ naan wax Baye Saliou Ndiaye Baye Fall ñu naan ko pas reculer te daa jiite ndog yi Baye Gaddi muy sa waajur daa làqu ba ma ñaari at laa nekk man addiye laa man doomi addiye laa man addiye man man dañ maa may addiye man bañ ne ko ba man addiye lañ may wooye man addiye moo waral peñe bii nii média yi ba may woo bëgg lii waaye Sëñ tubaam moo leen ci yemale barkeb si du Bamba aw ma nag ñu dul ñii doomu aadama yi laa am muy marché ñooy dajale seen alal di ma ko jox occas ak maquette baag fépp ñoo yëkkati seen alal di ma ko jox may boole ko ñu togg ndokkee di ko jëbal Sëñ Bamba kenn gënu leen a bëgg Sëñ Tuubaa nag may ñaanal murid Sëñ Bamba defal leen jàmm aw ma ci fierté aw ma ci yëg-yëg xam nga li ma ci am mooy liggéey Sëñ ma ñor bu jeexee sëriñ bi defal ma ñaan ma dellu sama yitey bopp bëgg naa dem ba amee daamar yu ma koy teg ànd ak mbooloo mi di liggéey sëñ Tuubaa noonu rek laa ko amee di ñaan yéen itam seen média bi sëñ borom teg ci loxo ba ngeen am ci lu kawe njot waaw Rafah TV maanaam sëñ borom teg ci loxo ngeen am soxna yu bari am dooley poos am ndigg lu baax loolu mooy ñaanu Baay Faal dara ji see rafal yal na nu yàlla may wér ya xayra tayfin ata bil bisri wal